asalaamaaleykum mbokki internet yi di ñu bàyyi xel ci Tawfekh production ngeen di ko am ci seen chaîne euh, YouTube euh, ñu amal émission entretien tey jëlee nag euh, émission bi di waxtaanee ci wàllum actualité réew mi politique économique sociale ak lépp ci bànqaas yi nekk ci biir réew mi daañ ci indi ay ponk yu am solo di ko waxtaanee ak i kàngam ay responsable tey jëlee nag suñu numéro bi ñu ngi fi nga xam nag moom moo di kër ministre Mbacke Ndiaye tey ji nag ngir waxtaan lu jëm ci actualité acteurs fii ci xew bu Sénégal euh, monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa euh, euh, bokk na ci actualité politique bu Sénégal jamono ji ñu ngi dëgmal ay élection présidentielle atum 2019 Serigne Mbacké Ndiaye ñu gis nag yaa ngi mouvance présidentielle. waaw maa ngi depuis 2012 déjà bi ñu quitté pouvoir bi ginnaaw bu ma waxtaanee ak président Abdoulaye Wade ginnaaw bu ma waxtaanee ak Idrissa Seck ginnaaw bu ma waxtaanee ak Pape Diop. ci laa jëkk a annoncé ni sama yéene mooy toute la famille libérale àndandoo am benn candidat en euh, élection présidentielle bi di ñëw euh, parce que dafa am sama gis-gisu politique du changer damay wax toujours rek ni question boobu mënti posé seetal la ma ci tontu woon ba ñu nekkee au pouvoir moom laa ci tontuwaat ni ma la ko waxee waxtaan naa ci ak président Wade du benn du ñaari yoon. président Wade moom ci boppam loolu moo nekkoon yéenam nekk bëgg-bëggam mooy tout la mouvance tout maanaam tous les libéraux àndandoo am benn candidat te it mënuloo jël ki nga xam ne moo nekk au pouvoir te man bu doon man Macky Sall du falu ku nekk xam ne 2012 lépp lu ma man def naa ko pour sama candidat di Abdoulaye du falu mais loolu yàlla moo ko jeexal yàlla moo def ni nguur gu nekk am na fu mu yem nguuram jeex na en 2012 dootul nekk candidat élection présidentielle donc jàpp naa ne li gënoon jaadu mooy seet ci famille bi kan ci moo gën a jekk kan ci moo gën a jekku ñu jàppale ko dans l'intérêt du pays ki gën a jekku nag jàpp naa ne mooy ki nga xam ne falu na te ñun faluñu ko donc depuis 2012 effectivement ma position est claire que Macky Sall mooy suma candidat prochaine élection bu ko yàlla suturaalee bu am deuxième mandat bu ko jeexalee ma seetaat de préférence li ma gënal mooy ci famille libérale bi ma am ci beneen candidat. ci famille libérale bi kenn mënu cee génne monsieur Karim Wade. te ku nekk xam na ne euh, jàpp jàpp nañ ko ngir mu nekk mbër ci euh, mouvance président ci euh, ci parti démocratique sénégalais lan moo tax yow gisoo jàppaleem jëm ci moom. damay wax nii xam nga euh, man dafa am loo xam ko def maanaam duma ma yéeg ba jàpp ci doomu mango wàcc wut aw yat di sànni pour doom bi wadd xam nga loolu njóobeen yoo koy def fa njóobeen yoo xaw a nitoo dikku li ma bëgg a wax mooy famille politique bi fam parce que Sénégal mën naa wax ni ñetti famille politique ñoo fi nekk benn bi dafa néew doole léegi mooy la gauche sénégalaise dañu néew doole. famille yi fi dekk mooy la famille de Senghor ak la famille politique de Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñoo fi dekk alors bu fekkee ni dem nañu ba élection am na euh, dërëm bi génnul gaal gi parce que Abdoulaye Wade perte na pouvoir bi mais ki ko yor ci njabootam la bokk ñi koy xëccu it ñu ci bari ci njabootam lañ bokk parce que Karim waa nga lim mënoon naa lim Idrissa Seck mënoon ngaa lim Pape Diop mënoon ngaa lim Souleymane di Ndiaye mënoon ngaa lim Ablaye Baldé mënoon ngaa lim Modou Diagne Fada mënoon ngaa lim Habib Sy mënoon ngaa lim Aliou ak ñeneen ak ñeneen yamul foofu Aïda booj mënoon nga ko lim ñeneen bari nañu ñëpp famille yu Ablaye Wade donc yàlla sutural na ko ba loolu lépp ci famille am la alors ki nga xam ni encore une fois ñun faluñu ko def naa ay pexeem gëm na li mu gëm yàlla suturaal ko ba mu falu mais jàppale ko mu am un deuxième mandat parce que man schéma bi yoo ma gisoon bu simple la te ku ma ci mës a toogal loolu laa la wax damay wax ni Macky Sall ñun faluñu ko encore une fois kon nañ ko bàyyi ak ñi ko fal ñooñu accompagner ko ci mandat bu njëkk du tere nag ñun ñu di ko jàppale parce que jàppale du ni da ngay jàppale président forcément da ngay nekk ci gouvernement da ngay nekk assemblée no mën nga ko jàppale te doo nekk ci gouvernement doo nekk assemblée doo nekk ci benn structure mais ko ne di ko jàppale su ñu demee ba mandaa bi jeex mooy mandaa bii di jeex fin 2018 ñu àndandoo ñun ñëpp def ko suñu candidat mu gañe élection yi bu boobaa danañu seet ci biir njaboot gi njabootu Ablaye Wade plus bien sûr ñi nga xam ne dañu àndul ak moom démb ñun ba ñu àndul ak moom kenn ku ci nekk ñu seet ban station nga mën a servir réew mi su ma la joxee exemple tudd nga Karim Wade ab euh, Macky Sall mënu na am un deuxième mandat Karim nekk premier ministre Idrissa sekk comme moom nee na kenn dootu ko nommé ci àddina mënoon na doon président assemblée nationale Pape Diop mënoon na doon maire de Dakar keneen ak keneen ku ci nekk di am benn parcelle de responsabilité parce que la famille libérale boo leen dajalee au moins mat nañ 70 pour cent de l' électorat jëlal élection yu fi jaar yëpp li Ablaye Wade am li Macky Sall am. li Idriss Seck am soo leen boolee pratiquement da am am 70 pour cent de l' électorat donc ki nga xam ne falu na ba pare nekk au pouvoir jàppale ko mu jeexal deuxième mandat ñu seet ci biir famille bi est ce que Karim Wade la est ce que Idriss la parce que seet ay critères yu ñu tëral tànn kenn ci ñoom samp ko mu gañe ñi ngi des nekk parce que xam nga ñëpp mënuñu doon président mais ñëpp mën nañ bokk ci équipe man bokk ci équipe buy gañe moom ma gënal ngay xëccoo doon présenté doo ko doon. autant nga bokk ci équipe bi gañ donc ki nga xam ne nekk na au pouvoir ba pare jàppale ko jàpp naa ni moo gën a yell moo gën a jaadu ki nga xam ne nekkul au pouvoir nga bëgg a wàcc ki nga ànd tam nekk au pouvoir di ko fa teg. peut-être de façon façon rek Karim mi nga tudd ne mënoon na nekk sax ministre ci gouvernement bu fekkee Macky Sall mën na gagné au cas da nga joxe ay exemple noonu rek. Mhm. mais xam nga dana xaw a paradoxe su koo xam ne pour mu dugg ci réew mi rek problème la donte ñi ngi annoncé ak ñëwam euh, ci de novembre bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppal loolu ko indi xeex boobu ko moo indi loolu yëpp parce que man li ma la wax nii xam nga yow ma delloo ci njàlbeen moo tax ma wax ci njaal njàlbeen la ma waxoon ci njàlbeen mooy nañu leen waxtaan ci suñu biir buñ ko defoon kon fii ñu nekk tey duñ fi nekk. buñ ko defoon kon daytuñu toog naan Karim Wade dina ñëw ak du ñëw suñ ko defoon tey Abdoulaye Wade da ngi dem pale di dugg ak génn saa bu ko neexee buñ ko defoon tey ñu bari ñoo nga xam. nga di ko defoon tamit duñu xalaat ay ay koo xam ne pour candidat en cas ah non non non parce que parce que ñunu neen la en vérité boo génnee le dossier Karim Wade. mais amul divergence entre euh, PDS ak Macky Sall amuñu benn divergence loolu rek mooy seen divergence nit nag euh, yàlla daf ko sàkk pour muy xalaat yàlla daf ko sàkk pour que ce problème amee ñu wut solution man jàpp naa ne loolu moo dul solution bi gën a gaaw